الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه السلام عليكم ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci bis bii di bisu aljuma dellu di sant yàlla moom mi nga xam ni moo ñuy boole ci waxtu bu tedd bi te muy waxtu bi nga xam ni wax na ni li ci nekk ci ay ngëneel kenn xamul na mu toll ba tax na mu ni yaa ayuha alladina amanu ida nudiya li salaati min yowmi ljuma fasaw ila dikrillahi wa zaru bay a dalikum xayrun lakum in kuntum taalamun su nga defee rek nga dégg ca ni waxtu aljuma waxtu la boo xam ni yàlla barke bu nekk làkk na ko ci biir moo taxoon mu digal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko taxawee moo communauté musulmane bi nga xam ni ñoo nekkoon ci ginnaaw waaye su ko defee rek yonent bi lu mu taxawee lu ne yàlla ci dogalam dafay def loolu di wéy loolu di wéy ba àdduna di tukki ndax lu ko indi mooy yonent bi moom mooy yonent bu mujj mooy yonent bu mujj moo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ci salaatul fatiha mu wax ni allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfaatihi lima uxliq waaye mu wax ni walxaatimi lima sabaq mooy ki nga xam ni moo tijji li tëjuwoon buntu nubuwa ba mu tëjoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy jox prophétie universelle ba ku ñu séddaat nubuwa nu sédd la ko ci barke waaye wal xaatimi li ma sabaka moom moo tëj la ko jiitu woon la ko jiitu woon moom moo ko clôturé moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tijji li nga xam ni tëju woon na soo ko delloosee ci xaqiqatu muhammadiya nu lay jàngal ni lu feeñ ci leer rek fekk na leeru yonent bi moo ko njëkk feeñ soo ko delloosee ci xaqiqatu muhammadiya ñu wax la ni lu feeñ ci leer rek fekk na leeru yonent bi moo ko njëkk feeñ il fatihi li ma uxliq moom moo tijji li tëjuwoon waaye wal xaati bi ni ma sabaxa moom moo tëj la ko jiitu woon lu ni bu xasee ba ñëw benn yonent dootul ñëw ca gannaaw lu ni bu xasee ba ñëw benn yonent dootul ñëw ca gannaaw su ko defee rek tabaarakallahu nga cay jàngat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla jox li ko yàlla jox moom waaye itam cër bi nga xam ni moom la ko yàlla sédd muy cër boo xam ni cër bu yaatu la muy cër boo xam ni cër bu yaatu la ndax mujj mission yi ñuy tudd yépp te ay nitu yàlla di ko doxal ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ koy delloo te teewu ko nag mission boobu muy mission yonent bi moom mu doon la mu doon moom mu doon la mu doon yàlla jiital ko yàlla jiital ko mu tijji la nga xam ni tëju woon na waaye yàlla itam def mu mujj ci yonent yi nga xam ni ginnaaw yonent dootul am su nga defee loolu ci dogalu yàlla lañ koy delloo waaye ci ngëneelal yàlla itam lañ koy delloo ndax yàlla yàgg na di symboliser zaman ci façon bu mel noonu yonent yàlla aadam alayhi salaam ci li nu mën a seede ci shahada ñëw na ci kaw suuf te boobu waxaguñu woon waxu sayidina muhammad waaye fekk na yonent bi jiitu na ko ca xëy fekk na jiitu na ko ca xëy ndax il fatihi lima uxli waaye gis nga bi ñuy dox di dox ba mujj ci moom ba nu mujjee ci moom mu ñëw ginnaaw isa ibnu mariam ñu wax ni wal xaatimi li ma sabaq tëj na la ko jiitu woon waaye fekk na isa ibnu mariam it nu interrompre mission yàlla dogal moom it mu nar a wàcc ca axiru zaman su ko defee itam wàccam alquran wax ni alquran wax ni wàccam da koy prouver ni àdduna bu tukki jege na mu ni kon wàccam rek dafay doon loo xam ni dafay seede ni àdduna buy tukki kat jege na kon ci kéemaanu yàlla yi la bokk ci kéemaanu yàlla yi la bokk ci kéemaanu yàlla yi la bokk ndax yàlla dafa am na moo organisé moo tax ñi déggul ñi déggul baatu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bu mujj ci yonent yi wal xaatimi li ma sabax moo tëj la ko jiitu woon am na ñu ko déggul am na ñu ko déggul ndax ñàkk ko dégg moo tax ñuy wax ni xanaa koon Isa ibnu Mariam buy wàccaat xanaa koon ci cadre wëli yu lay wàcc ma ni loolu loolu fa la njuum te yam ma ni loolu fa la njuum te yam ndax mission yonent ak mission wëli yu bokkuñu mission yonent ak mission wëli yu bokkuñu Isa ibnu Mariam agenda bi ñu ko joxoon mu ko doon doxal ca jamono ba yàlla di ko élever au ciel yéege ko buy wàccaat agenda boobu moo nekkaat ca réalité kon moom la yor yorul beneen agenda dafa fekk nag day ñëw rek dugal agenda bi ci fi nga xam ni agenda bi mos fa génn te mooy diine l'islam te mooy diine l'islam moo tax ma waxoon leen bu ñëwee ca code bi ñu ko jox te lay tijji ji valise ba ca biir géej ga génne téere original ba nga xam ni moom la ma sa wax waxul leneen la ñu falsifié yëpp moom bokku ci waaye moom lu mu waxoon boo liiree alquran rek gis ni kàddu gi benn la ni message boobu la yonent yëpp véhiculé kooku dañ koy jàngale su ko defee moo tax buy wàccaat ca Damas nañu ko yéegee woon noonu lañ koy wàccee waaye taxul nu mën a wax ni yonent koon ñëw na ci ginnaaw yonent bi ndax kii bokkul kii dañu interrompre mission bu ñu ko wàccee maanaam demul woon demul woon rek ba ñuy wax ni dellu si na demam nëbb la waaw nëbb buñ ko nëbboon ca asamaan la ci baatin wàcce waat ko pour mu ñëw bokk ci lay mujj ci jamono waaye seetal bu ñëwee fekk fi missionnaire universel bi fi yonent bi teg mu fekk ko fi muy imaam al mahdi mu ànd ak moom ca mission bi tabarakallah moo tax yooyu yàlla yàgg na di ko symboliser ci ay point xëy na nag ñu bare dañ ci bàyyiwul woon xel yàgg na jël yonent bi def ko mu jiitu ci xaqiqa te teewul mu mujj ñëw teewul mu mujj ñëw te moo tijji li tëju woon il fatihi li maa uxle waaye moo tëjit la ko jiitu woon wal xaatimi li maa sabab kon moo leen jiitu ci xaqiqa waaye itam moo tëj yonent yi yonent dootul am ca gannaaw Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani bi muy gën a àdduna fekk na ay wëli yàlla ay wëli yàlla yu ñu xam ba seede seen wilaay romb nañu romb nañu ci jamono romb nañu ci jamono nu mën ca lim ñu dul jeex ñoo xam ne ñëpp fedde nañu seen wilaay waaw ku mel ni Abdul Xaadir Jeylaani ku mel na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne boo doon lim du ñu jeex fekk romb nañu waaye teewul Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani moo tijji wàllu synthèse waaw mooy ñoom bu ñu ko jiitoo ci shahada moom moo leen jiitu ci xaqiqa waaye moom gannaawam kenn waxul ni dañuy tëj wàllu wilaaya moom moo tëjji wàllu wilaaya parce que moo leen jiitu ci xaqiqa waaw moo leen jiitu ci xaqiqa moo tax góor ga waxoon xutbul wujud illazi adda wilayatahu rabbi wa aadamu bayna almaai wa tiin moom moo leen jiitu ci wàllu xaqiqa waaw tëjji wàllu wilaaya waaye teewul ba mu ñëwee ba mu ñëwee it waxuñu gannaawam dafay tëj wàllu wilaaya waaw moom la mu tëj gannaawam mooy grade bi ko yàlla ràng waaw muy xatmiya ak katmiya loolu la kenn mën a tudd doon waaw waaye nag su ko defee wilaaya moom tëju ko waaye gis nga wax nañ ni imaamal mahdi mooy tëj wàllu wilaaya waaw wax nañ ko moo tax mag ñi daan wax jamonoom ku ko nekkul wëliw bu demee dootoo nekk wëliw te wax nañ dëgg ndax temps ba sax nga dootul am loolu boroom xam-xam yi ak mag ñëpp seeti nañu waaw dañu daan wax jamono mission ñu ni jamono ju wilaaya di yombee lay doon waaye ñu ni bu xasee ba mission moom jeex ku fa nekkul woon wali dootoo fa nekk ñu ni lu tax ñu ni ndax moom moom mooy tëj wàllu wilaaya mooy clôturer la synthèse kooku livre yi ñu bind ci xam-xam yépp nangu nañu ko ñu ni moom mooy clôturer wàllu synthèse ñu ni moo tax ku nekkul wali ci jamonoom dootoo ko doonati bu fi jógee ma ni boo ko bëggoon doon bu fi jógee sax temps biy des ci apocalypse moo la ko dul may pour wax la ni yàlla kon yàgg na di organiser yàgg na di organiser monde bi ca façon ba mu ko bëgg waaye su ko defee itam démb nu wax leen ca déclaration ba ni dooru mission mooy mission dooru mission mooy mission ndax nit ku nekk su mission dooree la nga war a def mooy jéem a redoubler d'effort maanaam jéem a yokk sa volonté jéem a yokk sa volonté jéem a yokk sa engagement jéem a yokk sa détermination moo tax dootul doon jamono noppalu waaye jamono liggéey lay doon ndax sànce yàlla sànce yàlla Sayyidina Hamza daan na wax ni sànce yàlla nee na moom gisu ci jamono juy laaj noppalu moom gisu ko ci sànce yàlla waaw bi nu ko laajee lu tax moom Seydina Hamza mu wax ni ndax yàlla kat dafa bind aljana pour noppalu waaw nee na kon boo noppaloo fii mën naa am ni fële nga nekk ci fitna waaw moom loolu moom loolu philosophie la waaw te kenn mënu ko ci bind moom Seydina Hamza waaw loolu moom philosophie la te kenn mënu ko ci bind moom Seydina Hamza waaw moom moo wax ni sànce yàlla nee na moom gisu ci fa ca noppalu waree jàng nu ni ko lu tax mu ni parce que aljana pour noppalu la mu ni moo tax boo xasee ba noppalu fii boo demee fële mën nga bañ noppalu waaw loolu philosophie la loolu philosophie la te kenn mënu ko ci dindi moom loolu la gëmoon moo tax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalee ci moom ci Uhud wax ko ni ko bu mu combattre tey ndax bu combattre bakkanam fi lay des bi ñu yabalee ndaw bi moom moom tontuwul ndaw bi ci loolu yonent bi wax daf ko tontu ni ko wax ko mu jox ma ndigal gaaw pour ma commencer bataille bi pour wax la ñoom seen degré ci fa ñu àggoon kenn xamul lan te li leen mayoon loolu yëpp mooy parce que seen xol raxul naar fekk waaw loolu moo leen ko may li leen ko mayoon mooy seen xol raxul naar fekk waaw saxaba yi kenn du ci naar fekk seen xol raxu ko ndax bu bu raxoon naar fekk mën na gëm-gëm lu ni day xeex te fekk na xeexul mën na gëm-gëm lu ni day xeex fekk na xeexul moo tax ñoom seen xol dafa selloon lu ñu gëm rek la ñuy wax bu sa xol sellee kenn du la gën a noppalu ci kaw suuf ndax li nga gëm rek ngay wax waaw moo tax xol bu sell am solo bis bu la bu sa xol sellee kenn du la gën a noppalu ci kaw suuf ndax li nga gëm ngay wax li nga gëmul doo ko wax waaye bu sa xol sellu kenn du la gën a sonn ci kaw suuf ndax fu ñu la fekk doo wax mukk li nga gëm waaw li ñu lay wax loo nit ñi di la ko wax loo rek ngay wax waaw wala li ngay wax pour yàq wala li ngay wax pour lore waaw da ngay sonn da ngay sonn ba ba dootoo nuuru nit sax waaw da ngay dem ba dootoo nuuru nit bu sa xol baaxul kenn du la gën a sonn da ngay dem ba dootoo nuuru nit waaw ndax dañ lay dëkkal fenn bi am na ñoo xam ni tey toll nañ ci xol bu yàqu boo leen gisee rek boo gisee seen vidéo même buñ la waxul daal daf lay wóor ni critique leen tax a jóg loolu da nga koy xam kooku day dem ba nit ñi dañ lay xam am na ñoo xam ne foo gisee seen kanam rek daf lay wóor ni boo dégloo li ñuy wax am na ku nii critique waaw dañ leen di xàmme ndax loolu lay seen liggéey ci loolu la ñuy dund waaw ci loolu la ñuy dund loolu kenn mënu leen ko bañ ndax ci la ñuy dund kooku da ngay dem ba da nga leen di xam ne fii ci réew mi am na ñoo xam ne boo leen gisee rek da ngay xam ni critique leen tax a jóg waaw te boo leen dégloo yi fekk na dëgg la waaw bés bu ne am na ku ñuy critique parce que loolu seen liggéey loolu seen liggéey gis nga ni nit di liggéeyee ci service nu fay ko weer am na ñoo xam ni noonu lañ leen di fay dañ leen di woore waaw leen di woo téléphone ci suuf rek fay leen waaw critiqueel diw bu paree critiqueel diw bu paree ñu fay la nga waxaale waxaale ba juboo ba juboo yi nga def vidéo waaw critiqué critiqué critiqué dem laaj sa xaalis lu fay la nga def sa poste waaw noonu ngay dëkke noonu ngay dëkke ba ba ngay dee kooku kooku ku ko yàlla nattoo kooku fa la alkande yam te ñu bari ci réew mi léegi loolu la ñuy dund ñu bari ci réew mi léegi loolu la ñuy dund te loolu danger bu rëy la danger bu rëy la danga koy yëg ngay gis ñoo xam ni loolu la loolu la ñuy dunde waaw te danger bu rëy la mooy dañ lay fay rek waaw nekkal ci deru gor bi bu paree dalal ca kale bu paree dalal ca kale nga nekk ci rek waaw da nga leen di xàmme ba koo leen di gis da ngay xam ni looloo leen tax a jóg leneen taxu leen waaye am na ñoo xamit yàlla dafay laabal seen xol ba koo leen gise rek xam ni wax lu baax ak defar moo leen tax a jóg waaw loolu it da koy xàmme su ko defee ñooñu kenn du leen jënd waaw kenn du leen jënd wax lu baax ak def lu baax rek leen tax jënd su boobaa ci noonu nga mën ci xàmme nga mën ci xàmme nitu aljana yi ndax nitu aljana foo ko fekk rek làmmiñam lu baax lay wax waaw foo ko fekk rek làmmiñam lu baax lay wax waaw lu am solo la lu am solo la Sayyidina Ababakar Saddiq benn mag daf ko mës ni ko comme yaa daan ànd ak yonent bi dama bëggoon nga baaxe ma nga baaxe ma nu may mën a mel nu may mën a mel ba nekk nitu aljana ëllëg nga xam ni ëllëg yow ak yonent bi fu ngeen nekk boo fa nekkul dinaa leen seen waaw Ababakar ni ko na nga fexe ba jullit yi bu nu loroo ci salaam yi mu ni ko buñ ci lorowul kenn mënu la tee dugg aljana mu ni ko waaye képp ku bëgg itam gis Firaaw na moom ëllëg mu ni ko fexeel bay lor jullit yi ci sa làmmiñ kenn mënu la tey ba doo gis Firaaw na ëllëg waaw pour wax la ni ndénkaane bu gàtt la mais bu am sens la dénkaane bu gàtt la mais bu am solo la waaw bu am solo la ndax xol bu sell rek moo am solo leneen amul solo xol bu sell rek moo am solo leneen amul solo waaye su ko defee li mën a dimbali li mën a dimbali doomu aadama ci xol bu sell mooy mu xam fa mu jëm waaw te nangu dogalu yàlla ndax yàlla moom ku nangu dogalam la muy dogal lay dogal ku ko nanguwul it la muy dogal lay dogal su ko defee nag nga noppalu ci nangu dogalam rek nangu dogalam daal di noppal sa bopp yàlla ku am fulla la ci li muy def moom mu xasee ba dogal boo ko nangoo noonu lay continuer dogal ko boo ko nanguwul noonu lay continuer dogal waaw su ko defee yow mi ko dul nangu nag yaa ciy loru waaye moom yàlla la muy dogal rek lay dogal waaw boo ko xamee noppalu boo ko xamul nag sonn waaw boo ko xamul sonn waaye booy ànd ci mission yooyu yëpp sa yoon nekku ci waaw booy ànd ci mission yooyu yëpp sa yoon nekku ci waaw missionnaire moom li ko ñor mooy fa mu jëm rek waaw li ci des yëpp yoonam nekku ci missionnaire moom li ko ñor rek mooy fa mu jëm fa mu jëm bi jullit yi bi jullit yi waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko li ñu la def ca taay tey dem nañu ba sunu mbooloo tollu fii waroon nañu mën a def benn benn riposte riposte bu bu bu sanglante ko waaw ca tay ndax nañu la doon sànnee doy de xale yi di la sànni doy waaw te xale ya kat ay mag ñoo leen xam bu pour ñu sànni yonente waaw ay mag ñoo leen wax ni sànni leen ko doy xale yi di la sànni doy waaw jullit yi dem histoire bi passé na waaye nu mer nu mer ni ko sunu mbooloo na mu toll tey waroon nañu dem ci dëkk ba laajte laajte ana mag ñi doon wax ni nanu sànni doj yonent bi ñu génn leen kenn par kenn waaw nu duma leen ñëpp xam ni doo seen borom waaw yonent bi laaj leen ni leen kañ la ñu demati woon taayit sax ñu bari ci ñoom ñuy xulkat fekke wuñ ko yonent bi di kañ la ñii di xalaat ñi naan ca jamono jee ca weer sàngam yonent bi di man de fàtte naa nu ñu ko defoon nañ ni histoire bu toll noonu ak lan la fa def keroog ak na mu mettee doo ko fàtte yonent bi ni wax waaye du sama priorité mu ni leen man mission laa am fa ma jëm rek sama ñor fi ma passé sama yoon nekku ci pour wax la ni keroog jàngal la leen ci kàddu gu gàtt lu kenn xamul na mu doon waaw te noonu la missionnaire di mel mooy mooy la nga passé ak la nit ñi wax sa yoon nekku ci waaw li la ñor mooy fa nga jëm waaw fa nga jëm rek moo la ñor te loolu mooy réalité bi mooy réalité bi moo tax koo dégg ma ngay sonn di dellu di dellu gannaaw ndax jiw neen nangam nangam di jaabante bay boo xam ne dina tardé ci yoon rawatina nag boo dundee ci réew mu mel na Sénégal boo dundee ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ni moom réew la moom moo xam ni chantage yi fu ne lay jëm chantage yi fu ne lay jëm boo toppee nit ñi moo tax da ngay gis léeg-léeg nit laxasaayu jëm ci këru diina nangam di waxe fekk gëmul sax dem ba waaw nit ñoo ko sonal rek ak ay pression waaw bis bu ne nga gis ko nit ku def vidéo maa ngi baalu nangam nangam ndax li ma wax kat yow li nga wax yow la engagé engagé wul kenn ko ci baalu baalu yàlla lu ci yoonu nit waaye fu mu ne nit ñee lay teg pression bu kenn xam waaw bis bu ne nga gis ko ku woo nit ñi keneen ku laay maa ngi baalu ndax nangam nangam soo defee nit ña ngay baalu ñoom ñi ngi def bàkkaar yoo xam ni seen digganteeg yàlla bu leen ko baalu rek yàqu nañ waaye ñu ngi toog fa la mel ni ñoo lay baal waaw kon baal baal nañ kaa ñu naan baalu ñu ko yu kenn xam ay tappal yu kenn xam waaye loolu yëpp mënoo ci dara mënoo ci dara ndax la Mawlaay Ahmadu Tijaani wax nee na bu fekkente ni nit ñi nga tànn jël yàlla teg ko de côté nee na nit ñi daañu la nattu nattu yu métti te duñ la jëriñ mu ni boo tànnee yàlla nag yàlla moom bu la nattoo yi dana la jëriñ waaw kon loolu fa la hikma yam waaw loolu fa la hikma yam te am na hikma yoo xam ni boo ko amee rek da ngay xam fa ngay teg sa tànk fa ngay teg sa tànk lu am solo da ngay xam fa ngay teg sa tànk lu am solo la waaw ndax boo jëmee ci yoon rek jëm nga ci yoon waaw boo jëmee ci yoon rek jëm nga ci yoon waaw ndax nit ñi mel noonu boo jëmee ci yoon rek yaa ngi ci yoon te boo nekkee ci yoon jeex li ci des sa yoon nekku ci waaw li ci des sa yoon nekku ci waaw lu nekk nag daan la ko wax ay fekk na yow boo yoree mission rek xam nga sa mission ndax loolooy réalité bi noonu lu nekk dégg nañ ko waaye ba suñu dégg lu nu lu nu amal njëriñ ndax dara amal lu nu njëriñ ci li nit ñi doon waaw nit ñi bu nee war nga def nangam defoo daal ni ko yëg boppam nangam nangam waaw mel nii dafa mel naa bu ñu continuer dox sa yoon daal ni dafa yara diku dafa nangam ñaar waaw ku yara diku te nekk ci këram de moom mi ngi ci jàmm ndax nekkul kër jàmm waaye fekk na li nu gëm rek mooy li nu war a wax daan ko wax li nu war a def daan ko def li ci des suñu yoon nekk waaw te loolu kat buñ ko xamee dañuy dem ba yàgg ne ah moo am fulla kay waaw door ga lu ne dañ koy waaye dina mujj ne ah moom kat am na fulla waaw parce que noonu la noonu la noonu la ndax Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Chérif noonu la jàngale waaw nee na ki la jox bët daal nee na xoolal fa mu la xool rek fa mu joxoñ xoolal li ci des nag sa yoon nekku ca maa yabtahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila lahu min baadi waaw yàlla nee na bu yëkkatee ngëneel jëme ko ci nit ku koy baare lu gisul waaw waaye nee na itam bu bu bu décidé ni du dem ci nit ku ko koy yóbbu la gisul waaw xikma boobu boo ciy dund rek noppalu waaye boo ci dund da ngay sonn waaw da ngay sonn waaye nag loolu yëpp rek mooy yàlla may la xol bu sell mooy tax nga mën ci dund parce que bu demee ba naa fekk rax ci dootul neex waaw naa fekk moom bu ci raxee dootul neex waaw ndax naa fekk moo lay sonal bis bu xëy da ngay bëgg ku nekk kontaan te boo bëggee ku nekk kontaan bu yàggee nga nekk naa fekk ndax ndax ñëpp mënoo mënoo mënoo wax ñu kontaan mënul ne boo waxee bu ñuy kontaanee ñee mën naa am ñu mer bu ñuy meree ñee mën naa am ñu kontaan kon kay yow bégalal yàlla rek lu ci sa yoon ci ñëpp kontaan na yow ñëpp mer na moo tax fii Sénégal da ngay gis ku bëgg wax ku ñëpp kontaan waaw nga xam ni wax yëpp du ko gëm waaw te da nga koy dégg di taxaw ci jàng diw kat nangam ko mu amee nangam pare ma ñëw ci diw pare ma ñëw ci diw pare ma ñëw ci diw pare ma ñëw ci diw boo nee ma ñëw ci diw ba mu jël buñ la laajee ka nga njëkke loo waxoon fàtte nga ko sax soo defee rek gaa yi génne wecc di joxe joxe joxe jeex na loolu nga ci am amoo ci leneen waaye boo gëmoon sa wàll sa wàll rek moo lay concerné waaw moo tax ma ni bari na problème bi ñuy gëstu ci Sénégal yépp ak coow yi fi am ci fan yi jaru ko waaw jaru ko fii ku nekk mën nga dox mën nga bay sa waaru bopp ñu bokk tarixa yële ñoom it ñu bay seen waar nun ñu bokk ci tarixa tijaniyya ñu bay suñu waar ñële wax ñi ñoom ay wahabit la nu ñu wax seen wax jeex na ku nekk na wax sa wax ah ku nekk na wax sa wax rek waaye boo demee ba di diw mën ni may yàqal c'est parce que liggéeyatoo waaw boo demee ba ni diw ma kat nañu jug ci moom ndax mi ngi may yàqal c'est parce que liggéeyatoo waaw waaye booy liggéey dëgg di wax dëgg la nga war a wax nun de li ñuy wax fi Medina Cheikh defe naa kenn tàllu sax déglu benn wahabit wala beneen mbir nit ku yàq waaw lu nu dégg rek da nga ñuy dolli pas-pas ci Cheikh Tijaan waaw moo tax boo ñëw diw ma li ma yàqal rek liggéey too ku nekk na waa wax mu ñëw ku nekk na liggéey liggéey tool moom du nax kenn waaw mag ñi ne ñu tool ku nekk jël sa ci leer di bay topp ko di bay topp ko nee nañ bu ñoree ku nekk gis la nga bayoon du nax kenn waaw te loolu rek moom solo te loolu la yonent bi soññee ci diine ji moo tax ñun ñëpp mën nañu dund te duñu am benn problème waaye ku ci nekk na nekk ci priorité waaw ku nekk bu nekkee ci priorité ña mu war a yar mu yar leen ña mu war a jàngal mu jàngal leen coow du am waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la ñuy soññ kon yàlla nañu yàlla xiir ci boobu yoon ñuy ànd ak moom ca recommandation yo mu ñuy jox ci zahir ak ci baatin ànd ak moom ca recommandation yo abadan bi biir yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh